dix mille yi ci des foog mu am lu ko compenser te loolu bu amee sponsoring dina baax su fekkee ni également état bi dugal na ci loxoom pour euh, jënd les droits de retransmission loolu aussi dina compenser yëf yi leneen li ci des mooy force Covid 19 27 millions lañ ci jox làmb nañu ko fulandi pour que làmb ji mën reprendre je pense que là là aussi c'est un droit absolu bu nga xam ne Gris Bordeaux wax na ko. pour que état bi gestu leen ci force Covid 19 ñu yokkal leen bu ko defee làmb ji mën a suqaliku. mel ni lii benn jalon la alerte mooy jiitu leneen li ci topp ñoom ñoo koy définir. leneen li ci topp a yëngu. non day gën a yëngu parce que lutte moom li ñuy wax c'est de manière graduelle da ngay def comme oto rek dugal premier dugal deuxième dugal troisième ba quatrième. loolu kay doole ja dina bari. merci.